Euh, waa tey lii lu rey la si man parce que néew lu yomb euh, ma nekk xale si ay biir mag lu toll ni ñaar fukki mouvement ak juróom si Sénégal yëpp ak si diaspora ñu ne yow yaa ñuy jiite loolu du yomb euh, ba tax na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ma jiital ñoom ñoo ma mun a jàppale si liggéey bi ndax newul lu yomb ndax du liggéeyu kenn ñun ñëpp ñu àndandoor liggéey si ngir ki nga xamante moom mooy suñu yaay te moom moo ñu tax a jóg di Adja Marème Faye Sall parce que man mii di wax yow dama dund loolu ci moom euh, ba tax na pour tiitaroo ko newul loo xam ne dana jafe ci man parce que man maa ngi dëkk région de Kaolack te toog naa fondation Servir le Sénégal déplacé ñëw ba Kaolack defar ma ko projet Rama muy li nga xamante dafa jàppale mag ñi si ñi nga xam ne dañoo néew doole seen loxo jotul ginnaaw mu defal leen foo xamante ne dañ fay jëfandikoo di fa suturawoo boole si jël ay siège jox leen pour ñu mun a doxi seen i soxla boole ko gàddu itam seeni faj yëpp kon loolu dafa nekk loo xam ne daf ma touché teg si aussi jàppale ay jigéen ñoo xamante ne nii seen doole euh, tollul noonu mu jàppale leen si ay financement mu nekk loo xam ne dama si teg sama bot ma gis ko mu jàppale leen ñu fii bu loolu weesoo Sénégal ñëpp xam nañ ne Mère Teresa di Adja Marème Faye Sall mhm. soxla jaam yi rek moom moo ko tax a jóg di ko def nag si sutura kenn du ko xam mhm. ku feebar mère Trésa mu ngi lay faj di Adja Marème Faye Sall képp ku am loo xamante ne nii problème la mère Trésa jóg na faj ko si sutura APR lu mu lëmb lëmb lëmb lëkkaloo dina ko dox dox ko si ndànk te kenn du yëg ngir ñëpp mun a ànd doon benn kon loolu dañ ko koy sante mu nekk nag suñu royukaay ba tax na tey képp koo xamante ne ñu ngi suñu nag yaa ngi def social te yàlla rek tax ndax Adja Marème Faye Sall ren ay mouvement de soutien ndax mbaaxam ak mais ñu Sénégal ñëpp di aussi la diaspora pour dame la Michel Dacosta président de la communication de la commission communication du mouvement la première dame comme ni nga ko pour lancer mouvement bi euh, bu parce que ku nekk

tout le Sénégal est fier kontaan nañ si première dame. waaw fépp la waaye lu ñu ëppal solo mooy social. parce que pour xam première dame mbiru social lañ ko xamee jàppale nit nit ko am soxla nga tawat wala nit ku am problème euh, fay sa jaam mu yëg ko moom su ko yëgee taxaw donc premier objectif moi surtout social. maanaam mbiru politique bëgguñu si dugg loolu parce que première dame ken xamee ko politique moom li ko xamee mooy social def lu déf jëf lu baax jëf ay ndigal jëkkëram te di Sénégalais